assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki internet yi suivre seen plateforme bii di muslim sénégal production di mms pro 221 mms pro 221 mu ngi leen di jaajëfal te di leen ndokkeel ci seen taxawaay bu rafet ak seen jàppale bu am solo depuis bu mu lancé plateforme bi ab chaîne la boo xamante ne nii lu ko tax a jóg mooy sensibilisation mooy leeralal julit ñi seeni mbiri diine waaye aussi tamit baaxe doomi aadama yi ay mbir yu leen mën a yokk yu leen mën a jëriñ ci seen ay mbirum adduna seen mbirum alaxira ak seen mbiru diine waane mbokk jullit nii ku seetaan vidéo yi ñuy def da ngay yëg ne ay effort yu jéggi dayo moom la ñuy déployer pour mën leen a jox vidéo yi nga xamante ne ni yéen koy am saa su nekk seeni téléphone bi ko seetaan. ci lu tolloog fukki weer ak juróom ñu am yéene gën a dëgëral taxawaay bi ak gën koo yaatal ci jënduk ay matériel ak i équipement objectif bi toll ci deux millions francs CFA maanaam ñaari millions. actuellement danoo nekk ci beneen dimension danoo bëgg a yéeg gi dimension bu ñu nekk dañ ko bëgg a dem ci beneen bu gën a kawee mooy que ne dañoo aajowoo ay matériel MMS TV dafa aajowoo ay matériel pour liggéey bi gën a ñoŋ pour qualité de vidéo bi qualité de son bi gën a mën a jàll njëriñ yi gën a mën a yaatu bi ñu xaymawee nag matériel yi nga xam ne aajo woon nañ ko pour mën a gën a mën a soqali liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ci chaîne bi loole toll na ci budget wu 2 millions. ci loolu MMS Pro 221 ak oustaz Ibrahim Gueye di lancer campagne levée de fonds opération dooleel mbaax ci MMS Pro 221. ñoo ngi lay ñaan nga participer. te nga mu participer. ngir participation man ngeen ko jaarale ci Orange Money Free Money wala Kpay ci numéro bi di 76 661 83 23. MMS Pro 221 juste l'essentiel pour la sérénité l'opportunité et la priorité. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون kon ñu dem ci sourate nahl verset 71 suñu borom verset 91 suñu borom yàlla mu ne wa awfu bi ahdillahi iza ahadtum ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون borom mi mu ne wa awfu bi ahdillah na ngeen respecté engagement yi ngeen di jël ci borom bi wa awfu bi ahdillah maanaam kóllëre yi ngeen seq ak yàlla na ngeen ko respecté kóllëre yi ñu seq ak yàlla nag bu ci jiitu mooy bu ñëwee ci kaw suuf dinañ la jàmm yow yàlla te la bokkaale ak dara loolu kenn ku nekk ñu dangaa jëloon engagement boobu waaw yàlla wax na ci alquran ne balaa ma leen di dugal balaa ma leen di def ay maniwu laa leen seede loolu woon yéen doomi aadama yëpp balaa ngeen a ñëw àdduna alastu bi rabbikum qaalu balaa xanaa man yàlla duma seen borom ngeen yéen ñëpp ne axankay ndax bu ngeen demee kaw suuf di ngeen ma jaamu te du ngeen ma bokkaale ak dara ñu ne waaw kuy seen borom yow ñëpp ñoo seede woon loolu ñu ñëw àdduna àdduna bi jàppuñu ñu àdduna bi jàppuñu àdduna bi jàpp ba ñenn nañu di bokkaale ñenn ñi lànk ñenn ñi bañ ñenn ñi wedd ñenn ñi doon ay yéefar kon engagement bi ñu jëloon suñu diggante ak suñu borom bi si jiitu mooy jaamu ko te jaamu gi tegu ci tawxid bañ ko bokkaal ak dara ñaareel ba mooy julli engagement la bu ñu jël ak suñu diggante ak suñu borom cinq fois par cinq prières par jour maanaam juróomi julli par bés loolu dañ koo jël engagement ak suñu borom ku ko deful yaa ngi trahir yaa ngi wor <coughs> beneen ba mooy engagement yi ngeen di jëlante seen diggante yi en tant que nit ak doomu aadama yéen diggante. waxoon naa keroog ne bokk na ci sëy sëy engagement la yooyee engagement bu leen ko trahir moo tax mu ne wa aw foo na ngeen matal bi ahdillaahi ci kuréel ak yàlla isa ahadtum su ngeen su ngeen su ngeen wëlërante ak ay nit xoolal kóllëre ci boppam yàlla da koo moomale boppam kóllëre kóllëre maanaam kóllëre mooy lan mooy pacte wax ak nit ki ngeen teunk dara wax ak nit ki ay cadeau ngeen am lu ngeen teunk seeni cadeau mo xam contrat de travail la mo xam euh acte de session la xom nu ñu koy waxee ah ak lu mu mënti doon mo xam ñu bindé ko ci papier signé ko mo xam ñu joxante ko ay cadeau wut ay cédé ñu cédé ko dégg nga lepp luy doomi adamay di digalé mu am ay cédé wala mu am ay papier ñu bind ko loolu kóllëre na tudd yàlla nag moo moom loolu kenn cin waru koo trahir moo tax ñaare ku trahir kóllëre yàlla mbugal la même bu dee nga ko seqal xoolal rek xoolal àdduna bi ni muy doxee bëriwul ñoo xam ne dañuy wor wor nii rek après mu jig leen nii mu jeex bëriwul de wor wor jigul kenn moo tax foo xam ne dëgg de nee nag ku wor ren ba déwén mu jig la <laughs> ku wor ren ba déwén mu jig la te am na ñoo xam ne moom dañuy wor gratuitement léeg nga am sa soxna yóbbu bitim réew trahir la ànd ak ay nit yeneen i doomi aadama ak yeneen ak yeneen moo tax mu ne wala ay maan bu leen teppi kóllëre yi su ngeen waatatee ci def benn mbir bu leen ko jéggi boo ne wallahi lii laay def defal loola bul teppi say waat bul teppi say waat non seulement waat bu bari sax jullit waru koo def waat maanaam lu xew nga waat saa man dinaa ñëw kër ga ah billaahi dinaa ñëw kër ga sëñ bi dinaa ñëw kër ga jarul <laughs> ñëw kër ga jarul waat mais am na ñoo xam ne lu leen dañuy waat waaw non dinaa ñëw non wallahi dinaa ñëw yenn saa nit ñoo lay waatloo waatal waxaat naan kaan waatal donc waat bu bari julit waru ko def mais aussi ci yalla rek lañuy wat niñu wat ci suñu borom ne yonent bi neena na su ngeen di waat kuy wat na wat ci yalla mbaa mu man kana xaalifan fal yahlif billahi aw li yasmut kenn du waat ci sa gagnok bay bakkanu dom ken do ci wat sa bakkanu dom ken do ci waat wat naa ko ci diw sangam ken do waat ci nit lolou bokale la kenn du wat ci nit lolou bokk na ci ba yonent bi neena na alayhi salaatu salaam kep ku wat ci nit bokkaale nga yalla barki diw sangam wóor na diw sàngam te diw sangam mom fatna bu yag kon wat moy billahi boobu mo ci gën billahi mo ci gën wallahi mo ci gën mo mo ci top après nak ay warabil kaaba wat na ci borom kaaba gi wat na ci borom asaman ak suuf waat naa ci yàlla mu yor sama bakkan yooyu waa mën naa ne waaye ay sama bakkanu doom ak ay sama gañ ak baay ak yooyu ay xeeti waat la yoo xam ne ah, dafa xaraam kon jullit su waatee la mu waat da ko war a respecté ren maa lay jëndal xaru tabaski waat naa ko ci yàlla ne maa lay jëndal xaru tabaski ah respecté ko de da waat da waat respecté ko waaye yonent bi alayhi salaatu salaam dane man suma waté ci dara ma dem ba gis lu gëna bax lolu damay woral sama wat gi manam damay kafara wat gi def lu gëna bax lolé ci masalan masalan diw sangam diw sangam bu aksi ci kër gi dina ko genn kër gi wallahi dina ko genn kër gi ndax jikko ndax lu mu def lo nakari nga waté dang koy dak sa kër ki moko ko kër ga mu koy dak ken mënu maa tere ba wallahi dina ko dak nga wat nga nga ba ci kër gi nak situation yi changé nga ñëw fekk fa ay mbir wala ay kilifa yu la yoo xam xamoon noo leen di def ñu ñaan la jek nee ah dama waatoon de yonent bi alayhi salatu salaam nee da ngay kafara waat gi da ngay kafara waat gi te nga def lu bax lu bax li moy lan moy nga maslaha defaro ak ki nga yàqandoo lool nu ñuy kafaaree waat ñetti dimension la bo waatee dara te la nga waatoon defoo ko da ngay kafaara gi mooy day am looy def yàlla jéggal la ñetti mbir la bi ci jiitu <coughs> mooy leel miskin juróom benn miskin nga jox leen ñu lekk ba suur maanaam jox dépense juróom benn miskin ñu dépense su lekk ba suur mënoo loolu nga solal leen ay yére dem ñawluji ay yére yu rafet solal leen mënoo loolu wooral ñetti fan yu tegloo jeex na boo woo ci gën a yomb jàpp naa de woor ñetti fan yi moo gën a yomb de mais yooyu aussi ay jàngat yu am solo da cee nekk mooy l'islam dafa social l'islam bu lay pine day jëriñ keneen xoolal ki waat ne dootul sëy ay soxnaam xam nga yow boo nee boo nee sa soxna wallahi bu ma nammatee seq ak yow dara wallahi yal naa ko seqa sans waajur bu jigéen sëy ba day tas attention soo waatee sa soxna ne ko yow yow suur naa la te gaa yi simila ak saa la ñu wax ko dafa am benn xale bu jigéen bu nekk Maroc koo xam ne ci at mii déclaré na ma jëkkëram fase na ko ci ay yoon yu bari xanaa mel num at saa bu ñu merloowee rek moo jëkkër yi soxna si ñaan baat sëñ bi ko fase naa la buñ paree ñu defa noonu dama am meroo nag danga am nangam ak ba pare di wut leen di daganal li ñuy def loolu yéen bu leen ma fontoo kon boo waatee ne wallahi soxna si soxlaatuma la suur naa su ma nammatee ceq ak yow dara nangam wax ay wax ah léegi nag sëy moom day tas ci saa si day tas mu des nag nga dem ba ci ginnaaw wala ay médiateur noonu lañ koy waxee ay médiation jóg di ci wax wala ay nit defaraat wala yow nga dem ba bëgg a delluwaat ginnaaw lislaam borom bi danaan kaay ñëwal sëñ bi mbir yi du yombee noonu léegi xam nga nooy def da bëgg a jëlaat soxna si waaw da dem goreel jaam bu jigéen temps yi jaam di am jaam bu jigéen ngay dem goreel da dem jënd ab jaam ci sa alal ne ko goreel naa la libéré naa la ndeysaan mu ngoog <clears throat> dangay dem goreel ab jaam bu jigéen xoolal acte social bu am solo maanaam lislaam yow lay pine mais daa bëgg keneen jëriñu ci nga goreel jaam bu jigéen soo mënul loolu yëpp nag ci lay doog ñëw naan laan ah courant mu coupé ci lay doog ñëw naan laan naan laan waaye léegi kon wooral ñaari weer yu teg loo tey nga def ñaari weer yu tegloo ngay woor weer yu tegloo yooyu borom xam-xam yi ne nañ boo ci amoon ngant ba dog benn benn bés rek dangay ngay commencé waat <laughs> waaw waaw sinon soxna si moom bu laal bul jege day arab waaw ah. ah. waaw kon wala tanqudul ayman moo tax bul gaaw waat bul def lu jóg nga waat picc mu naaw nga waat ko def waxal say wax rek soo paree nga dem waaw ah. moo tax su borom mu ne baada tawkiidiha ginnaaw bi waat gi dëgëree waqad jaaltumullaha aleykum kafila te def ngeen yàlla mu nekk seen seede inna allaha naka yàlla ni mu nekkoon taxawee baax na de waaw voilà merci wa qad jaaltumullaha kafila inna allaha naka yàlla yaalamu aji xam la maa li ngeen def lépp lu ngeen def yàlla xam wala takunu bu leen nekk kallati comme soxna si nga xam ne day dagg azlaha ñawam nga min baadi quwatin an kaata ginnaaw bi mu ko ñëwee ba mu dëgër nee nañu lii soxna loon bu nekkoon màkka soxna su nekk màkk soo xamante ne nii danaan ñaw ay ràbb danaan ràbb ay mbaxana yii nii ak ay yére loolu daan ràbb mais moom saa yu ràbbee ràbb ràbb ba mbaxana mi di waaj pare mu daggaat lépp waat lépp commencé waat à zéro noonu rek lay nekkee suñu borom mu ne nag jullit warta mel noonu boo tegee say wax ba mu dëgër n'importe quoi warul tax nga changer décision mu ne tattaxidoona bay na baynakum seen waat yi tamit bu leen ko def bu leen ko def lu ñu tuddee euh, naxaate kaay parce que am na ñoo xam ne boo leen waatalee rek ñu gëm la am na ñoo xam ne boo leen waatalee ñu gëm la ah saay nee nga di nga ma fay de wa wallahi dinaa la fay ah te aussi lislaam dafa imposé jullit bi suñ ko waatalee na nangu suñ ko waatalee na nangu l'islam moo ñu ko sant moo tax mu ne an takuna ummatan hiya arba min umma te lii borom bi da ciy jàjj ki nga xam ne day fasanteeg kóllëre saa yu intérêt tegoo mu fasanteeg nit ñi kóllëre solo ak intérêt su fa intérêt jeexee amatul kóllëre ci kenn soxlaatul kenn du maslaxa kenn parce que amul cew intere te am na nit ñu mel noonu waaw am na nit ñu mel noonu am na nit ñoo xam ne bu ñu la romb di nuyu rek am na lu ñu ci yow waaw bu ñu la di nuyoo benn waaye day bëgg soxna ci benn kër saa yu fa rombee day nuyoo bu ñu rombee gorom bu góor bi ki mu bëgg doomam ñaari loxo njaay njaay njaay njaay njaay njaay ana waa kër ga maa ñu ngi si jàmm man la doomu diw aha am jëndal suy goro dem beneen yoon bu ko séenee fële ne ko njaay njaay njaay njaay njaay njaay mais bu takkee doomam ah yax na bu ko rombatee benn loxo lay jox njaay ñu rek lay rek dem dafa ne di jàmm sant waaw innama yabluukum allahu bi nee na borom bi daf leen di nattoo ci yii wala yubayyinanna lakum yowma alqiyaama dinañ leen leeralal nag ëllëg yowma alqiyaama maa kuntum fihi taxtalifuuna wuute yi nga xam ne da ngeen cee nekkoon fii ci àdduna ëllëg yowma alqiyaama borom bi tabaaraka wa taala dana ko leeral effectivement yowma alqiyaama léppay leer amma yatasaaluuna an innabai al azim alladi hum fihi muxtalifoon waaw yowmal qiyaam moom noonu ay leer yi gars yi di werante fii benn waaye mas na maa wax yéen bu ñu waxee ngeen naan gàmm bi daala ba yowmal qiyaam ba yowmal qiyaam dana leer mu toog leen bu leen gàmm ñun bàyyi leen ñu ñu gàmm ba yowmal qiyaam dinañ leer dina leer yàlla dina leeral kan moo nekk ci dëgg ma ne ko waa dina leer de moom wax dëgg yàlla leer moom dina ko def moom dëgg la de lépp lu ñu doon wuute fii moom yomal kaam day leer naa ah waaw moo tax yàlla tudde ko yowma tubula sarair bés bi secret yi di feeñ yomal kaam amul secret déedéet foofu lépp ay feeñ waaw ah, waaw da gis koo xamante ne nii suñu borom day écrasé yaa dundam dundam da koy écrasé yaa ñëpp toog bi seetaan ay yal nañu yàlla suturaal la ilaha illa moo tax yonent bi danaan ñaan sutura àllaaxira allahumma usturni fawqa al ardi wa tahta al ardi wa yawma al ardi alayk yalla ma ngi lay ñaan sutura ci kaw suuf ak ci bir suuf ak bes bi nga xamanteni ni ci nga ñuy dekkal bu la yalla sutura rek mu baax mais bu la suturaalul ñu ne day war de sun borom ne walaw sa allah bu sobon yalla la jaalakum ummatan wahida kon dana def doomi adamay yeen ñep ngeen doon ben xet ben xet neena suma su neexoon ma def leen ngeen doon benn xeet ñépp doon ay pël mbaa ñëpp doon ay séeréel mbaa ñëpp doon ay naar mbaa ñëpp doon ay nit ñu ñuul waaw matan waaxida waaye fii nag li mu bëgg a wax mooy bu ma neexoon ñëpp gëm lenn gëm lenn maanaam ñëpp di ay ibaadu mbaa ñépp di ay murit gëm lenn waaw <laughs> mu ne nag waaye dëglu mu ne walaakin waaye kon maanaam neexu ko lu ko neex mu ne walaakin yudillu man maa maay seetaan ku ma soob bàyyi ko mu réer jàdd ci mbooy gi bu di dem bu yàgg réer moom réer ma tànn ku ma soob jubal ko teg ko ci siraatal mustaqim muy dund alquran ak sunna bu leer waaw wa yahdi maa jubal man yasha ku ma soob yàlla ñu yàlla jubal yàlla buñ yàlla seetaana suñu bopp ñu réer waaw am na ñu réer nag wax dëgg yàlla am nañu réer waaw am ñu réer de te réer gi moom ci réew mi sëñ bi daa bari daa bari lool lool lool waaw te li ci gën a garaaw mooy da gis ku réer ba noppi di réer laate waaw ci gàmmu gi paase rek laa dégg benn kilifa bu toog naan Jibril moo assuré sécurité am ku ko laal xam mu ne Jibril moo assuré sécurité moom ku ko laal xam nee na moom du ñeexu ñebe de man am naa lu ma leer ne Jibril moo yor sama sécurité mooy sama garde corps waaw ku tudd sama tur rek bu mu bu la attaqué di nga am problème nee na Jibril moo koy moo koy garde ma dégg ku ne moom diw sàngam dugal na ko àjjana ba mu visité ba ñëwaat fii ci àdduna muy waat nag waat ne diw sàngam dugal na ma àjjana man mii di wax ak yéen man mii di wax ak yéen ngeen may gis nii may wax ak yéen diw sàngam jëlee na ma fii tudd dëkk bi jëlee na ma fii yóbbu ma ba àjjana dugal ma ci biir may visité ba agsi waat fii ci àdduna toog di wax ak yéen gaa yi naan gaa yi di yuuxu <laughs> loolu Sénégal rek nga ko mën a wax am ñu la gëm Sénégal rek boo demoon ba ginnaaw Amérique boo ko waxee am ñu wet nit kenn du ko gëm ba ne gëm <laughs> ki koy wax gëmu ko ki koy wax ki koy wax xam na ne waxul dëgg waaw mais mbooloo mi mbooloo mi day am ñoo xam ne dañ koy gëm quoi ci mbooloo mi moom dina am sufaha ñenn ñi nga xam ne vraiment seen xel yi sorewul dañ koy gëm maanaam Sénégal dañoo bokk ci ni ñu yare nit mooy jàpp ne mag ak bejjaawam boroom xam ak xam-xamam dana toog di wax lu dul dëgg Sénégal noonu la ñu yare nit moo tax même boo jàkkaaroo rek mag muy wax lu dul dëgg da ngay encaissé mais jamais nga ne ko waxoo dëgg noonu la ñu yare te gaa yi dañuy toogal seeni karaw yu weex bi wax lu dul dëgg te xam nañ ne ñoom waxuñ dëgg nit ñi lañuy ñuy tuul lëndëm rek waaw ah, nit ñi la ñuy tuul lëndëm nii rek Sénégal day gëm mooy nit mooy wax ne diw sàngam day dekkal ku dee diw sàngam day dekkal ku dee te moom papaam ak yaayam ak bàjjanam ak ay magam ay rakam koñ bi mu dëkk ñépp dee nañ ba moom sax dee na ay doomam di dee dekkalu leen ñu jékki-jékki nii rek benn waaye ñëw nañu diw da daan dekkal ku dee ñu gëm mais y a un problème quoi léegi nag beneen problème bi aussi mooy ñoom dañoo bëgg wax yooyu bu ñu ko waxee même boo ko gëmut noppil maanaam bul weddi quoi loolu it mënta nekk de <laughs> loolu it mënta ne de loolu it maanaam buñ ko génnee ci penc yi moom dañ koy weddi moom buñ ko yemale woon seen biir kër kenn du ko weddi man su ma toogee ak sama doom yi sama biir kër toog sama doom yi ne leen guddi gu jot damay fanaane aras ne leen waaw ñu ne waaw ne ma leen na fi yem nag dafa yem bu leen ko wax seen xarit yi bu leen ko nettali école bu leen ko wax fenn waaye xam leen ne man mii di seen baay guddi gi jot damay fanaani aras seen yaay ngi nii man na maa ñu ne waaw ma ne leen na fa yem nag kuy weddi kenn du weddi waaye moom nit ñi bu ma génnee ci penc mi wax ci télé yeeg réseaux sociaux ne guddi gu jot damay aras damaa moom nit ñi man waaye sëñ bi gars yi dañ ma naan sëñ bi li ngay wax seetaaral li ngay wax kon penc mi. ak diine ji ak xelu doomi aadama yi ku leen bëgg lëndëmal diine yàlla ji ku ci wax lu jàngut ci alxuraan ñu weddi la ñu weddi la ndax diine du yokk diine du yokku diine accepté wul innovation l'islam du innové xaw ma noonu lañ koy waxe l'islam du innové jamais innovation ci mbirum àdduna yii la sama waajuru góor mas nañ toog di waxtaan maak moom ma ne ko lislaam nanguwul yeesal nanguwul manam yokk ci dolli lu bees ma ko lislaam nanguwul ma man mi di sa baay boo sama kër gi ma liggéey ko ni bam yem yow nga ñëw sama ginnaw di sama dom ju baax nga ne sa bay day jambar la won liggéey na ci kër gi ba yem fi bal ma yok kër gi étage changé karo yi wat ko defaraat kër yi mune ma lol est-ce que du lu baax lu baax la de ci bi àdduna ma ne ko lu baax la mu ne ma ndax loolu mënu nekk yonent bi ndax mënta def ba yem fii ay boroomi xam-xam ay nit yi diine gis ne lii baax na ñu ñëw yokk ko ci mu gën a rafet ma ne ko lislaam nanguwul loolu parce que yonent bi mënta jóge àdduna mukk lu dul mission bi daa jeex maanaam yonent bi mënta génn àdduna maanaam du génn àdduna lu dul lislaam bi daa jeex waaw moo tax affaire yi nanguwul innovation du ko nangu beneen bi ci des mooy yow yàlla du la fay mukk jaamu yàlla boo xam ne yonent bi defu ko yàlla du la ko fay hmm. waaw bokkul ci lislaam jaamu yàlla bu yonente bi deful bokk ci coow li jeex lu yonente bi deful boo ko defee doo ci am tiyaaba bu dee tiyaaba ngay sàkku rek laa wax xam nga yii nii boo ko waxee gars yi dañ la naan yonente bi mosul jël mosul utiliser téléphone waaye kan mooy sàkku tiyaaba ci téléphone yor téléphone daa am yiw déedéet man man damay jaamoo yàlla yor téléphone yor téléphone amul yiw ay dégg bo waxee ñu ne bi masta dugg avion dem makka dugg avion dem makka dugg gi nga dugg avion du dara ci ajmi mi du ci dara ya ki dox ak ki war welo ak ki saret ak ki waru fas yam les moyens la bu jamono indi ñukoy koy Manam maanaam dañu ñak ay lay bo waxee ci yii lañ lay delloo nan lan yaangi non tak ay verre bi takki verre waaw ah, yaa ngi noonu ventilo di la ëpp booy xutba yonante bi ventilo daaw ko ëpp xoolal lii <laughs> maanaam ñun dañ laa ne ci jaamu yàlla ci diine laa wax ci jaamu yàlla li fi yonante bi bàyyi woon rek ci nga war a yem amoo awa doo avancel doo manquel déedéet waaw danga koy defe comme ni mu ko defee woon waaw maanaam pour wax leen sunna sunna ni ñu ko war a déggee barke yëpp dangay wax ak benn xale bu jigéen ma am ma am lu ma am lu lu may mu ne ma waxal bismillah ci dagg gi ma bismillah ma dag. mu ne waxal alhamdulilah ma ne ko déedéet du ma ko wax mu ne ma lu tax ko ci hadis yi yonent bi jàngal nañu ne def da war def da ngaa war wax bismillah mais gisuma fu mu jàngalee ne boo Alhamdulillah. da ngaa war a alhamdulilah maanaam ci da war bismillah boo paree da Alhamdulillah war alhamdulilah noonu la ko jàngalee lépp looy def rek l'islam da laa soññe nga ko bismillah mais ne wala boo paree neen alhamdulilah kon boo paree ne alhamdulilah da nga ko cee dolli yow bokk gis nga sew sew boobu xam nga ndax comprendre ngeen wala comprendre ma ne ma ne lislaam ni ñu war a mel ak yonent bi alayhi salaatu salaam mooy dañuy yem fi mu ñu yem loo rëdd bi nii rëdd bi duñ ko def maanaam yonent bi fii la yemoon fa la ñuy yem ma joxe misaal pour mu gën a leer dafa am benn xale boo xam ne. dafa dóor baayam yenu ko yóbbu ko ba ci àll ba sànni ko ci mpax ñibbisiwaat ci kër gi xale boobu màgg fi takk soxna am doom doom ji dóor ko ba mu bëgg a dee yenu yóbbu ci àll ba ba fi mu sànni woon baayam mu romb ko mu ne ko ah yaa ngi romb nag man romb ma woon de fii laa sànni woon sama baay dag ma fay yey teg ma yemale li mu bëgg a wax mooy fii baay yem fa nga yem maanaam lislaam yonent bi alayhi salatu salaam pendant vingt trois ans vingt trois ans suñu borom dana yonent bi alayhi salaam inna arsalnaaka ñun yàlla noo la yónni ci doomi aadama yi ñu wàcce alquran muy cent quatorze sorat ay digle na ci biir ay santaane na ci biir ma jox la ko ngir lan li tubayyina linnaasi ngir nga leeralal nit ñi maa nuzzila ilayhim li ma bëgg ci ñoom man yàlla loolu laa bëgg yonent bi di leeral di def ñuy gis muy leral di def ñuy gis ba mission bi jeex suñu borom ne ko jeex na demal jóge fi fat ko mu dem legi nak yow da nga wara yem fim yem waro ko eppal waro ko rom waro ko dépassé mané ko mom mu may wax ne lepp loy def da nga wara wax bismillah mané ko wa lo deug la mu ne bo paré nga na alhamdullah mané ko dédé loolu dang ko cee dolli alhamdullah ci lepp loy def bo paré ne alhamdulilah moom ko lo dang ko bokku ci ñun jang nañ ci nih. ne sooy taal lamp da nga war bismillah mais ndax bu lamp také da nga war alhamdullilah alhamdulillah jangal wu ko mais lepp loy def mom ne bismillah mom da ko mentionné da ko wax amna ci yo xamné ne da la ne boy tambalé neel bismillah bo paré neel alhamdulillah comme lan comme lek wax kenn di ci gëna bari manam l'islam non la mel moy bul def lu mu defut alhamdulilah lekk waaw maanaam ay yu sew sewaan la yoo xam ne mën nga koo bañ a bàyyi xel waaw xoola abdullah ibnu mas'ud abdullah ibnu mas'ud dafa gàtt saxaaba bu gàtt la moom njoolul abdullah ibnu mas'ud du nit ku njool yonent bi alayhi salaatu salaam dafa amoon benn garab gu nekkoon ci biir Médine bu fa yonent bi di ramb day sëgg ngir bañ garab gi laal ko day sëgg Abdullah ibnu Mas'ud buy romb fu yonante bi don romb moom moom day day seug day seug bo waxe mune man dal yonante bi bu agsi won fi da daan seug man damay seug jeex allahu akbar waaw manam biñ maanaam dañ ñu lan la yalla wax wa in tutiuhu tahtadu bu len ko toppee rek ngeen jub manam yow top yonante bi takal say bepp fattal say nopp say tànk bi teg ko fi mu ko teg nga jàll dem wallahi doo ko rëccu waaye ne foofu sëñ bi di rafet rafetal di jël sa xel yi di di wóorut wóorut maanaam gis nga ñàkk def ci diina yàlla ji lu yonante bi defut loolu daa gën a dal xel di fi def lu fi yonante bi deful woon loolu daa dal xel waaw kon suñ borom nee na bu ma neexoon ma def nit ñi ñu doon benn xeet gëmandoo benn mbir ñoom ñëpp waaye borom bi nee na loolu soobu ma li ma soob mooy ma xool ñu ma neex ma seetaan leen ñu réer ma xool ñu ma neex ma jubal leen mu ne nag yemu ci loolu mu ne wala tus alun na des na leen laaj yowmal qiyaam amma kuntum taamaloon li ngeen doon def yëpp doon naa dinaa leen ko laaj lii ngay def foo ko teg loolu moo tax bi daa garaaw parce que ëllëg yowmal qiyaam dañ lay laaj foo ko jële foo ko teg dama am benn waaye bu ma gis ci réseaux sociaux yi ndeysaan mu toog ci tere di waaraate mu ne ki nga xamante ne mii dafay dajji tudd yàlla yooyu gaa yi di def ci jàkka yi par bi maanaam lal ser bu weex ñu wër ko di def ay zikrullah ay tudd yàlla mu ne ki koy weddi wala ki koy dajji manta am benn lay ci lislaam manta am lay buy wone ne mu ne man mënu koo génneel benn aaya ci alquran buy wone ne lii da da da koy tere mu ne te moom te moom am na aaya ci alquran buy santaane loolu waa ji ne ko indi aaya bi bu tudd aaya bi nekk suratu am na bu nekk suratu baqara am na bu nekk suratu nuun nuur mu ne wa man azlamu mimman manaa masajid allahi an yudkara fi hasmuhu wa saa fi xarabiha mu ne ana kan moo gën a mën a tooñ ki nga xamante ne nii dafay tere jàkka yàlla yi ñu bañ faa tudd yàlla wala moom loolu la layee ay doomi aadama def kuréel lal benn sër bu weex ñu tudd ay baat yoo xam ne ñoom ñoo ko rabal seen bopp te baat yooyu rek nga sañ a tudd ci jotaay boobu sañoo koo changé mënoo koo changé yow xuma nag comprendre nga li mu bëgg wax maanaam mu laye mu bu general ci ben mbir mu specific aya bo xamne dafa general mom la laye ci ben mbir mu tunku masalan tuddu yalla rey ken tere wuko yekati kaddu yalla ci ken tere wuko waye jak lel jak lel ab jaamu yalla bo xamante ni forme bi rek lu special la defin bi lu spécial la baat yañ fay tudd lu spécial la loolu la ñuy tere te yonante bi dafa ko loolu la ñuy tere abdullahi ibnu mas'ud dafa fekk waa kuufa ginnaaw yonante bi alayhi salaatu salaam fekk yonante bi génn na àdduna saxaaba yi ñoo fa des abdullahi ibnu mas'ud dugg ci jàkka ji fekk ay dix personnes toog ne le dix personnes toog nii dix personnes toog ne dix personnes toog nii dix personnes toog ci digg bi ñële ñu nga naan allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñii naan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ñii naan subhanallah subhanallah subhanallah ñii naan la ilaha illa allah laa ilaha illa allah saaga wuñu waxuñu lu bon li ñuy wax lu baax la abdullah ibn masud bi mu duggee ci jàkk ji da muslu ci shaytané dañ a'udhu billahi minash asheytaani rajim dal di leen wax ni waaw yéen ñi yeena gëna bëgg lu baax rasulillahi wala ñun ñii yéen ñu gën a xam la yonent bi indiwoon question boobu la leen laaj ne leen yéen ñii yéen a gën a bëgg lu baax rasulillahi wala ñun ñii saxaaba yi yéen ñu gën a xam lislaam gaa yi ne ko lu waral loolu ñun defuñu lu aay ñun dañoo toog rek def suñuy kuréel ñee ñu ngay sant yàlla ñee ñu ngay sàbbaal yàlla ñee ñu ngay wéetal yàlla loolu lu ci nekk Abdullah ibn Mas'ud leen nekk naa ko yonante bi pandant vingt trois ans muy jàngale lislaam lii mosu koo def loolay benn mu ne leen nekk naa ak yonant bi lu ëpp ñaar fukki at lislaam bi ñëw mu koy jàngale mu koy dund ma ciy teg sama bët genn wàllu lislaam ci biir jàkk ji la wàcc te lii nii mësu koo def mu ne leen bu ci mbaax ne woon mu def ko mbaa mu santañ mbaa mu sant ñu ko ñun daa leen dàq ñoom ñëpp ñu génn jumaa ji pourtant ñooñu dañoo toogoon di tudd yàlla de dañoo toogoon def seenu kuréel waaye forme bi forme bi moo amul ci lislaam moo tax mu tere leen kon gaa gaañi mbalaan mu weex mi rek problème la forme jëf ji problème la baat yañ fay tudd problème la te mënoo koo changé boo indi woon mbalaan mu ñuul dañu naan déedéet faw mu doon mu weex maanaam boo woon rek demal jël n'importe quel sër rek nga lal xanaa sër du sër dañu naan déedéet faw mu nekk bu weex nga jékki-jékki rek indi leen beneen baat ne leen léegi nañ bàyyi baat bi nañuy wax baat bi donte lépp turu yàlla la dañ la daan déedéet parce que ay norme la ay cote la loolu mooy mbir mi maanaam lislaam du maanaam booy def jaamu yàlla danga koy def ni ko yonent bi defe ci waxtu bi mu ko defee waxtu bi boo ko changé baaxutul fi mu ne nii waxtu timis bu ñu ne woon léegi dañ koy julli géeye maanaam géej gi la ñuy def timis bi la def ñeenti rakka géegee ñu def ko ñett rak juutal affaire yi du bax parce que yonent bi wu ko non lolou moy l'islam bu clair non lañ koy déggee mais mbiri du ay xel motax lepp loy def ci diine des na la ko laaj ëlëk yowmal qiyam na nga gu nang ko wutal tontu bu leer rek wala tusalunna amma kuntum ta'malun Ah, sun borom ne wala tattakhidu ay aymaanakum daxalan baynakum bu leen def seen waat yi moyen be moyen boo xam ne da ngeen ci naxaate waaw di waatal nit ki rek ngir nax ko ngir teg ko xel <clears throat> fatadilla qadamum baada subutiha bu ko defee nga teggi sa tànk ginnaaw bi mu jubee ginnaaw bi nga ko tegee ci dëgg lii mu ngi junju ki nga xamante ni day tegu ci yoonu njub ba mu yàgg mu bàyyi ko fa dem nekk ci ay bidaa ki nekk ci sunna ba mu yàgg bàyyi ko fa dem nekk ci ay nekk ci ay bidaa ki nekk ci lislaam ba mu yàgg bàyyi ko dem nekk ci ak kéefër wa taduuqu suua bi ma sadattum an sabilillah bu ko defee ngeen mos ci loolu ngeen ñam ci loolu euh, mbugal ngeen ñam ci loolu euh, as suua bi ma sadattum euh, mbugal mu ñaaw ci sababu dogale gi ngeen doon dogaale li nga xam ne mooy yoonu borom bi tabaraka wa taala walakum adabun azim te ëllëg yowm alqiyaam mbugal mu metti mbugal mu rëy mu ngi leen di xaar su borom mu ne wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila bu leen jënde bu leen jënde engagement yi ngeen jël seen diggante ak seen borom bu leen ko jënde njëg lu woyof maanaam jël say engagement ba noppi tax ay intérêt àdduna tax nga dellu ci ginnaaw waaw ah, mu ngi mel ni nga war a ñu proposé la benn poste liggéey waaye ñu ne la poste bi àndul ak muuraay nag nga dindi kaala gi teg ne la ngir liggéey ci poste boobu yaa ngi jëndee mbirum àdduna yaa ngi jëndee mbirum àdduna diine di nga perte waaw ah, di nga perte waaw moom la moom la Serigne tubaab bindoon ci kun kaati man mu ne man baaxa bi nuurin man baaxa laa tasari dunya bi uxra yaa fataa man baaxa nuuran bi dujaa fasa fasa yan damu mu ne képp ku jënd lëndëm jëndee képp ku jël leer jëndee ko lëndëm yowmal qiyaam di nga ko rëcc mu ne yow ndaw li yow ndaw li bu jël sa diine ji jaay ko jëndee ko àdduna bu ko def lim la bëgg a wax mooy boo nekkee ndaw di dund diine mu ne lépp lu mënta ànd ak àdduna ci àdduna ànd ak yow sa diine ji bàyyi loola te am des ak sa diine des ak sa diine mu ne innama mu ne innama inda allah na ngeen xam ne la nekk fa yàlla huwa xayrun lakum mooy moo gën de waaw la nekk fa yàlla maanaam li ñu yàlla dencal nee na moo gën li ci àdduna ak ci biir in kuntum taalamuuna bu fekkee ne xam ngeen maa indakum xam leen ne lépp lu nekk ci yéen doomi aadama yi fii ci àdduna yan fad bés day ñëw mu jeex wa maa inda allahi te la nekk fa yàlla baaqin day sax du jeex wala na des na fay alladina ñi nga xam ne sabaru ñoom muñ fii ci àdduna ajrahum seen fay bi ahsani maa kaanu yaamaloon na gën a rafet ca nañ doon def la gën a rafet ca lañ doon def waaw mu ne lépp lu ngeen am fii ci àdduna day jeex maa indakum yan fadu dëgg la doomu aadama ñaar yi kepp la lo am ci aduna lu mu bari bari bari bari yow da ngay faatu dem bari ko fi nyari mu jeex bala ngay de ñaar yi mom fa mu am bo de ay milliardaire wala ngay millionnaire wala nga ami kër ami auto ami ay soxna am ay dom am ay tol ñaar ben ci ñaar yi mom moy xew imma nga daanu ba amato dara fi ci aduna fek ya ngi dundu mbaa nga joge fi affaire bi dess fi bu Allah àllaaxira nak yi la yalla di defal bo duggé aljana mom du jeex bal day yokk xéewali àjjana day yokk bés par bés maanaam bu la yàlla dugalee aljanna bés mu jot da ngay gis ci sa moomeel loo mosoon woon gis loolu amul loolu amul fu muy yem loolu noonu lay continuer abadan boo tax àjjana nit ki mën ta xam lu mu am xoolal yow ki gën a néew ki gën a pauvre yonent bi alayhi na ki gën a pauvre miskin ki nga xam ne waa aljanna buñ ko gisee dañ koy yéene sarax mooy ki dugg aljanna yàlla jox ko lu toll ni asamaan lu toll ni àdduna sept continent euh, cinq continent cinq continent yii li fi nekk ci alal ak moomeel ak ay hectares suuf ak géej ak ay alal ay pétrole ay gaz ay or ay jamaa li fi nekk yépp ci àdduna suñu borom daal di koy multiplier sept fois wala sax mu multiplier ko dix fois mu jox la ko mu ne ko yaa ko moom lu toll nii nga am biir biir aljanna jëlal kooku la waa àjjana bu ñu génnee sarax kooku lañ koy jox kooku mooy miskin bi li muy tekki mooy multi milliardaire u àdduna multi milliardaire àdduna ci pauvre àjjana yi la bokk ci pauvre àdduna àjjana yi la la bokk kon kon millionnaire rek milliardaire biir àjjana moom nu nu nuy mel nuy mel say ay keur yo xamne ay keur yo xamne yàlla ci jawu ji la koy liggeyal non bàyyi ko noonu muy folote du am fondama waaw du am fondama ha la ilaa xedu keur yo nu mel keur yi ci jawu ji lay nek ni ci jawu ji di folote chet ndeysaan moo tax mu ne la nekk fa yàlla du jeex du fi jóg amul pause waaw amul fay bor amul leb doo soxlaal kenn dara marché àjjana yi amul jënd marché àjjana yi am na ay marché nag am na ay marché àjjana am na ay marché mais marché bi amul jënd da dem ci marché bi nii di xool loo gis rek boo ko aajowee da ngay wékki jël dem amul jënd ajana amul xaalis déedéet jaay ma nangam amu fa am na ay marché nduggukaay am na ay marché jëndukaay am na ay marché leneen ak leneen waaw waaw ndeysaan wala najziyanna alladina sabaru borom bi nee na dinaa fay muñkat yi ajrahum seen pay bi ahsani na mu gën a rafetee maakaano yaamaloon la nga xam ne nekkoon di ko def dimension muñ dimension muñ muñ aussi dimension bu kawe la dimension bu rëy rëy la muñ bokk na ci muñ mooy am lu la metti jóge ci doomu aadama te nga man ci dara te man ci dara waaye nga bàyyi noonu muñ ko loolu dimension bu kawe la ci muñ bokkul ci muñ laa wax bokkul ci muñ benn situation dara sa kaw te mënoo ci dara nga ne ah xam ah, muñ te yàlla tax <laughs> déedéet nga am lu la naqari foo mën a kaas kaas nga ko takk ay rajo dem ci télé yi foo xalaat dem nga fa lu ne wax nga ko ba sonn ba sa yaakaar tas nga ne xaaral ma muñee ko yàlla mu muñoo da ngaa ñàkk pexe waaye muñ mooy lan mooy da ngaa dëkk ak benn dëkkandoo da ngaa dëkk ak benn dëkkandoo moo xam mu nekk première nga nekk deuxième mbaa seen buntu kër yi jàkkaarloo te bés bu jot nag ngay recevoir ay nattu ak ay lor muy jóge ci moom di ñëw ci yow te nak man nga ci dara bu la neexon nga taxaw ci léegi musafara wo waye ngir bañ ko sonal ngir bañ ko indir ay problème ngir bañ ko tek lu mu nga nango muñ lor yoyu te yalla rek tax lu moy muñ ñooñu la yalla di wax naan la yajziyanna alladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu dimension bu kawe la parce que dañuy wax ne rafetal jëme ci dëkkandoo ñaari dimension la rafetal jëme ci ñaari dimension la bi ci jiitu mooy nga fexe ba yow bu ko lor bu ko déranger nga fexe ba benn lor bi jóge ci yow dem ci moom waaye liy jóge ci moom ci ay lor du ñëw ci yow nga am capacité mën koo gérer mën koo muñ yàlla may ko ñëpp yàlla may ko ñëpp ñooñu la yàlla tuddee ci alquran suratu zumar ñu jub ñi waaw ñi nga xamante ne nii euh, su amee lu nekk si diggante ak ñoom yow la ñuy gën a yéene jàmm yow yow la ñuy gën a bëgg nga nekk ci jàmm bu ñuy joxe sax ci yow la ñuy tàmbalee et pourtant xam nañ ne sa digganteeg ñoom am na lu fa nekk waaw suñu borom mu ne man amila saalihan képp ku def lu baax min ngay góor aw unsa wala jigéen huwate moom muminun way la dëgg lu wax ji man amila saalihan képp ku def lu baax min dakarin te lu baax nag ñaari condition lay am lu baax ci lislaam ñaari condition lay am bi ci jiitu mooy nga am ci ndigalu yàlla ñaareel ba mooy mu dëppook sunna mu dëppook sunna képp ku def lu baax min dakarin ngay góor aw unsa mbaa ngay jigéen loolu doyul de wa mu'min fekk da gëm yàlla fekk ngay ab jullit loolu dafay génnee ku def lu baax te doo jullit maanaam yéefar tey bu ñëwoon gasub teen fii kooku luy àtteem yéefar koo xam ne du jullit moo xam chrétien la mbaa juif la mbaa ab yéefar la ci beneen anam mu ñëw ba ci buntu jàkk ji fii wala mu dem ba dëkk boo xam ne amul ñu ndox mu sampal leen forage brasser leen ay robinet tabaxal leen ay hôpitaux tabaxal leen ay école gratuitement waaye moom gëmul yàlla dug jullit kooku luy àtteem li def noonu day niil wala fii ci àdduna effectivement borom bi du tooñ yàlla da ko koy fay fii ci àdduna da koy dolliwaat ci alalam dolliwaat ko ci wërsëgam fegal ko ay nattu àdduna gàllankooral ko ay pexe doomi aadama fay ko ko fii ci àdduna waaye allaaxira bu demee du am dara allaaxira bu demee am dara waaw allaaxira moom ki fay fayeeku nii taalal sa loxo nii fayeeku mooy ab jullit man qaala laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah imaanan bihi wa ixlaasa ki seede ne dañu jaamu kenn ci kaw suuf ku yàlla te gëm na muhammad yàlla ki ko yónni nda jëfe ndigal li bàyyi tere ab julit nga boo defee lu baax ñu pointé la boo faatoo yàlla fay la ko jeex na mais boo faatoo dugg sawara maa ko wax waaw kii laa wax boo faatoo doo taxe yonent bi alayhi salaatu nee na Muusaa yonent yalla musa bu delu ci waton aduna suma gemul yalla yak ay jefum do ko sawara yonent yalla musa bu aduna bu ma man rasulillahi yalla yak ay jefum dugal ko du dugal ko sawara waaw kon ngir nga am tiyaba ngir nga am yiw da bok ci condition yi moy nga nek jullit man amila salihan kep ko def lu bax min dakarin ngay go aw umta ba ngay jigen wa huwa te mu'minun ab julit la aaya bii mën naa rekle coow li fi amoon temps yee passé ndax ku dul bu deewee dañ koy ñaanal xam nga loolu nekkoon na fi ndax ku dul jullit bu faatoo dañ koy ñaanal wala duñ ko ñaanal tontu bi mooy deesu ko ñaanal ab jullit ku dul jullit bu faatoo kenn du ne yàlla na ko yàlla yërëm loolu du soxor de loolu du iñaan de loolu jëfe ndigal la principe diiné la mais ñun dañoo am ñun sénégal ni ñuy dundé da ngay am sam rak sa bàjjen bo xamné bokku bokk la diine xëy ci pelli mom mo xawa set lolu pelli amul lolu mais ci séeréer li da ngay gis benn kër goo xam ne faapateew bi du julit <laughs> wala comment apa ngay bokku benn sant la wax sa bay di julit sa yaay di julit waye faapa teew du julit badjan badjan du julli du julit ci ben fami? mag ak rak yu bok ndey ak bay kii di julit kii di julit keur seyo ni ngay dugg appartement yo xamne ñoy jakarlo di ben fami? keur gi jakarlo ñii di di ay julit ñii duñ ay julit te ku sañon nak lu bok ci yow bu deewee dugg ku sañon lu bok ci yow bu deewee dugg àjjana kon ku dul jullit bu faato do ko ñaanal ñeegal ak yermande yalla lolu la ne du soxor mais principe diine la principe diine la comme ni nga xamantene ni buñ la yekale yap mbam xoo ci bool tibbal la ko indil la sa kër maslaha bokul ci nga koy dippi diko lek lekk mbaa nga koy téye bu deme nga tour ko dede dam ko nan señ bi man duma lek yap mbam xoo lolu principe diine la mën na bañ a yàq ay diggante waaw la yonent yàlla ibrahim sunu boroom da koo tere woon mu ñaanal baayam même yonent bi sax sunu boroom da koo tere woon mu ñaanal baayam yonent bi alayhi salaatu salaam parce que yonent bi baayam deewut ci lislaam yaayam deewut ci lislaam doonte gaa yi nag dañuy bañ loolu waaw gaa yi dañuy bañ loolu de waaw ah. loolu moo am de ah, waaw waaw ah, a xadis yu wér moo ci rot yonent bi alayhi yaayam deewul ci lislaam baayam deewul ci lislaam ki ko yar ki ko yar muy Abu Taalib deewul ci lislaam te wallahi boo jàngee histoire Abu Taalib ni mu doon protéger rasulillahi ni mu sonne woon ci yonent bi alayhi salaatu salaam da ngay yëg ci sa ne kenn gën a mérito àjjana Abu Taalib mbirum yàlla bu fekkoon affaire sentimentale la Abu day dugg aljanna day dugg aljanna man de bu affaire yi nekkoon sama loxo caabi yi bu nekkoon sama loxo xaw ma nu muy demee demee demee demee demee moom mais moom mën naa négocier ay mbiram waaw parce que xoolal koo xamante ne nii dafa jël rasulillahi yi gënat la ko ak ay doomam yendalul fanaanalul amul jàmm lu mu amoon ci alal yëpp mu dépassé ko ci rasulullah alayhi salaatu wasalaam taxawu ko soutenir ko assi euh, euh, ko ba ci wàllum diine jour bi waa màkk di ñëwee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko lislaam bii ngay woote laa bëgg nga bàyyi ko loo bëgg ñu jox la boo bañee nag dinañu dagaloo boole suñu force yëpp xeex ak yow kon bàyyil woote bi Abu Taalib ñëw ci moom ne ko dégg sa mbokk yi lañu wax nee ñu nga bàyyi woote bi nga bayyi la ilaha illallah ji ngay wax nga bàyyi ko Abu Taalib yonent bi ne ko buñu jëlon wër bi tek sama loxo jor jël jant bi tek sama loxo càmmoñ wër bi di symboliser alal manam buñu jëlon alal aduna àdduna yëpp teg sama loxo mba mba jant bi muy symboliser tangor mbugal ñu jël mbugalu aduna yëpp tek ko sama loxo nen ngir ma bayyi wote bi di l'islam du moko bayyi mukk ma fatou Yalla ma jox ndigal ci limay def Abu Taalib doonte gemul sax muneko yalla li ngay def yalla la ci jox ndigal muneko wa muneko ma sa ma ngi sa demal gennal wotel waxal ku dal ci yow ma dal ci kaw waxal lula neex fofu ñetti fan lañ ci tek yalla wati aaya nako fas da bima tumar demal nga jéebaane mission bi kan moko don défendre ab yéfer abo Taalib waaye ànd ak loolu comme bi muy faatu moom waxut laa ilaha illallah yàlla da koy dugal sawara xoolal li mu daj yépp ci rasulullah alayhi salaatu wasalaam waaw moo tax affaire yi du problème mu sentiment du problème mu xel du problème mu yaama neex affaire ay principe la qul in kuntum aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashira wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwaalun iqtaraftumuuhaa wa tijaaratan taxshawna kasaadahaa wa masaakina tayyibatan tardawnahaa ahabbu ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihaadin fi sabilihi fatarabbasu suñu boroom dafa ne gaañi bu dee seen baay yii ñoo leen gënal yàlla wala seen doom yii wala seen soxna yii wala seen dëkkuwaay yi wala seeni mbokk wala seeni frère wala seen commerce bi wala seen liggéey moo leen gënal yàlla yéen a ngoog yéen a ngoog manam du problème sentiment ku fi dé té doo jullit kenn du la ñaanal dañ lay baye ak yalla <laughs> lu ko neex ci yow mu def lu ko soob ci yow rek mu def ko té am ab dañ la sante nga gëm né ku du jullit bu faato do dugg sawara lolou du soxor de principe la manam nafa di sik sak nan waw du won ab jullit de nak ah, ya yàlla bëri na yërmande de yalla man nako koo jégal yàlla xam ne ku muy yërëm ki wax ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah donte ab mooykatu yàlla la donte bakkaar yi gën a rëy day sàcc di njaaloo di rey nit di defi bàkkaar di naan sàngara di def bàkkaar yi gën a rëy waaye moom gëm na ne ab julit la day wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah bu waxtu julli jotee mu góorgóorlu donte day sàcc day njaaloo day naan sàngara day def xéti bakkar yu rëy yëpp yoonu kenn nekku ci digënté mom ak boromam bu faato dañ koy jullé ñaanal ko bàyyi ak yalla né yoy ay principe bu diiné la waye waji milliardaire la won borom alal la won xol bi rafetoon na daana def lu baax diiné safu ko wu ko yalla ko yorontam gëmu wallahi bu faato du taxé du dugg àjjana sawara lay dugg naru jahannama xaalidina fiha yoy du soxor de yoy ay principe la suñu borom dafa ne sama yërmande daa yaatu lool waaye maa ngi ko jagleel ñan ñi ragal yàlla ñi gëm yërmande yàlla ñëpp a ci xej waaye daa am bunt daa am bunt bu koy jaaree waaw mooy tawxiid waaw mooy tawxiid waaw laa ilaha illallah muhammadun rasulullah moom yi mooy caabi yi boo ko yor doo ubbi bunt bi de déedéet yërmande bi doo ci bokk bo bo ubbe buntu bi nak wa ha nak mom yermane yalla man la dab parce que yalla dugal na aljanna ku masta def lu bax yonente bee ko wax ci muslim ku masta def lu bax ko xamne dafa nek ci aduna di def lu ko neex di moy yalla di defi bàkkaar di njaalo di sàcc di nan sangere ba bes bu muy genn aduna mu dagale njabot gi bañ tok mu ne leen man nag xam naa ne moom bu ma dajeek yàlla du baax ci man xam naa ne bu ma yàlla jàppee moom du baax ci man ndax mosumaa def lu baax defulu ma yàlla dara léegi nag ragal naa dajeek yàlla li ma bëgg mooy su ma deewee na ngeen ma lakk ba ma nekk dóom ngeen jël benn ngeen jël ngeen xaaj dóom bi lii ngeen sànni ko géeju ndaayaan lii ngeen sànni ko géeju kayaar lii ngeen dem tefes si mbujum sànni ko fa ma tasaaroo ci jaww ji bu ko defee du ma dajeek yàlla fenn ndax xamna na def mo lu bax te ragal na dajek mom ci lolu bi mu genné aduna dom yi defal ko lolu yalla santane malaika yi ñu rassembler jëm ji déclarer ko comme ni namu ya ñu taxawal ko ci kanamu yalla suñu borom ne ko li nga def lo ci djublu mu ne ko ragal la rek aduna la ma doon def yépp ci bakkan bi la ko tek waye yow rek la ragal yalla ne ko jéggal na la demal aljanna dafa dé ci tawhid dafa dé ci ragal yalla bakkanam la topone rek bakkanam la toppoon rek moo tax féet nit kee ngi am tawxiid ay jëfam yi muy def nii mu la nax yàlla ko ku bëri ne la waaye bu fa tawxiid bi nekkut bu fa tawxiid ba nekkut danañ ci yàlla musal kon suñu borom nee naa ku def lu baax di góor mbaa jigéen foofu it da ngay gis ne góor ak jigéen moom ñoo yem ci lu baax moom diine moom góor ak jigéen ñoo yem lu dul ci miraas lu dul ci miraas góor bu jullee tisbaar jigéen julli tisbaar ñoom ñaar ñoo bokk li leen yàlla di fay te jigéen ñi sax mën naa ëpp la tuyaaba ko góor ki ndax bu dee julli jigéen gi moo gën a baax julli moom la gën a yàlla di fay ndax góor buy julli ne allahu akbar ari fatiha saar allahu akbar sami allahu liman hamidoo allahu akbar allahu akbar taf taf mu sëlmal ne salaamaaleykum comme ni pël yi di jullee ci daral yi <laughs> daral yi yéen di ngeen dem daral xëy na mais ñun dañuy dem daral laa ilaha illa <laughs> yunus seetëtëtët gis nga boo demee daral waxtu julli nga xool julli yi <laughs> kii day julli moom yow béy bi ci tànk bi <laughs> kii di julli téye béy bi taxawaay bi rek problème la tànk yi day sutante ñu leen neex la ñuy taxawee te julli gi mom lepp nga lepp nga ci bir xol gauche ak xool droite ak sen tukuy ñew ak lepp nga ci julli gi mom ah ci allah ay julli day doy alors que bu goor di julle nonu jigen mom muru bar jot taxaway taxawaay bu rafet kàbbaar ga jaar yoon ruko ba seug ba seug ba jaar yoon mo upp tiyabu ko góor gi waaw ah, moo ëpp ko góor ci yenn jëfu diine yi nag lislaam moo ñëw tarancé mu ne yow góor yaa moom lii yow jigéen yaa moom lii lu mel ni noddu jigéen du noddu liqaam waru ko jigéen buy julli moom bu ko neexee rek mu ñëw ne allahu akbar julli julleem du jàng ca kaw ci suuf lay jàng même bu doon jiite ay moroomu jigéenam bu jàng ca kaw waaw du noddu du liqaam du ren ah, non dina rendi jigéen day rendi dagar na ci lislaam ay dégg du jiitee góor waaw bu ñu ñàkkoon imaam ba ñàkk imaam ñàkk imaam moom jigéen bu jiite moom ak bu fi ëppoon xam-xam ñëpp nag moom du jiite moom waaw yooyu ay mbir la yu lislaam rëdd affaire yi teg ko fi waaye ci wàllum yiw ñoo yem ku def lu baax ci ñoom ngay góor mbaa jigéen su borom fay la moo tax mu ne fa la nuxyiyannahu danaa ko dundal fii ci àdduna xayaatan tayyibatan dundugu dundugu dundugu neex waaw maanaam booy def lu baax te gëm yàlla da ngay am dundugu neex dundugu dal bu am tranquillité fii ci àdduna moo tax dañuy wax ne ab jullit dara waru koo jafe wala najziyannahum des na leen fayit nag ajrahum seenu pay bi ahsani maa kaanu yaamaloon na mu gën a rafetee ca nan ko doon defee ëllëg yawmal qiyaam waaw su moroom ne fa ida qaraata sooy jàng alquraan alquraan fasta'iz na nga muslu billaahi ci yàlla mina shaytaani rajiimi ci seytaane bi nga xam ne dañ koo dàq ci yërmande yàlla ndigal la booy jàng alquran na nga muslu ci seytaane na nga wax audu billahi min ashaytaani rajim doog a jàng waaye boroom xam-xam yi nee nañ du farata nag du farata waaye sunna bu dëgër la parce que ndigalu yàlla la booy jàng alquran na nga muslu ci seytaane doo a tàmbali bu fekkee bopp saar ngay jàng neel audu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim doog a tàmbali saar wi bu dee jàngoo bopp saar nag dégg nga na nga ci seytaane bu la neexee bul wax bismillahi rahmaani rahim waaw même booy jiite donte ci suuf nga koy wax allahu akbar ci suuf audu billahi min ashaytan rajim bismillahi rahmaani rahim ata nag yëkkati alhamdulilah voilà donte bokk na ci sunna léeg-léeg nga yëkkati ko maanaam nga yëkkati bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah jàng mu dem waaw kon yonent bi suñu borom da ko ne fa ida qaraata booy jàng alquran alquran fastaid na nga muslu billahi ci yàlla mina sheytaani rajim ci sheytaani mi nga xam den dañ koo dàq ci yërmande yàlla su borom mooy innahu moom sheytaane laysa lahu sultaanun amul kattan ak doole ala alladina ci ñi nga xam ne amanu yàlla lañ gëm wa ala rabbihim yatawakkaluun te yàlla lañ bàyyeeg seen bopp ñii moom seytaane mënul ci ñoom dara njabar mënul ci ñoom dara waaw ñan ñi nga xam ne yàlla lañu ñu gëm te moom lañ bàyyi seen bopp ñii ñii ñoo jaaxal seytaane ñii ñii ñoo jaaxal seytaane waaw mooy ñi nga xam ne yàlla lañ gëm seen borom lañ gëm gëmuñu keneen ku dul yàlla te it nag yàlla lañ bàyyeek seen bopp xam nañ ne seen dund gii ku ciy jéem lu sotti ku dul te neexul yàlla amut ñu lu ci moom bàyyi kook seen bopp ñii moom seytaane da leen di moytoo ko muslu waaw mu ne innama sultaanuhu naka doole moom seytaane ala allazina dafay valable ci ñi nga xam ne yatawallawnahu ñooy dimbalante ak moom wallazina hum bihi mushrikuuna wallazina ak ñi nga xam ne bihi ci sababu seytaane mushrikuuna dañuy bokkaale yàlla seytaane ñii lay jekk mooy ñiy dimbalante ak moom am na doomu aadama yu dimbalante ak seytaane mooy njubarkat yi ak ñiy dem ci njabarkat yi waaw ñii dañuy dimbalante ak seytaane njabarkat bi manta defuk njabar lu dul daa dimbali ko seytaane parce que njabar xam-xamu jinne la du xam-xamu nit njabar du xam-xamu nit jinne yi ñoo am xam-xamu njabar ñooy ñëw jëflante doomu aadama bi ne ko boo defee lii def nii def nii def nii ma defal la lii yow mii doomu aadama boo demee ci njabarkat di ko santub njabar da ngay fay jinne bi bi nga xam ne moo war a exécuter njabar bi fay njabarkat bi nga xam ne moo collaboré ak seytaane bi te doo ko yëg njabarkat bi xaalis lay laaj fay ma cent mille deux cent mille trois cent mille mu encaissé ay deux cent mille am trois cent mille dugal ci poosam neexalam a ngi noonu moom moom njabarkat bi mu des neexalu seytaane bi mu ne la génneel saraxu nangam ak nangam ak nangam loolu la jinne bi loolu la ci seytaane bi am moo tax amul kenn kuy dem ci njabarkat lu dul day génne sarax fan yële passé benn waaye daa ñëw ci man dañ koy yebal ci man mu ñëw mu ne ma man dafa dañ ma boole ak benn paa boo xam ne li génn ci sarax mot na vingt millions waaw mu ne ma minimum minimum mu ne man daaw ma calculer mais minimum minimum minimum génn naa ci sarax luy tolloog vingt millions ma ko noo koy defee mu ne ma damay jékki-jékki rek mu woo ma mu ne ma sarax bi yàpp giléem lay àndal ma jox ko ma ne ko ñaata la mu ne ma sept cent mil ma jox mu ne ma dem na ma ba laaj ma giléem giléem gu ñu war a rey giléem giléemu lëmm ñu jënd ko rendi ko ma ne ko te da koo joxe mu ne ma waaye ma dama koo joxe kay mu ne ma kooku daa mel daa fu ma teewul lu ma laaj ma joxe saraxu bëy saraxu nag saraxu juróomi nag saraxu ñeenti nag saraxu nangam léeg ñi nekk Europe lañuy la ñuy jekku ci yooyu ñu nekk Europe bitim réew benn waay ma sama wax ne am na benn waay boo xam ne ay kayit la ko diggoon ay kayit ne ko mën naa laa defaral luy tax nga ami kayit mu ne ko waaw acca mu dem seet dem ñëw mu ne ko waaye day ànd ak ay sarax waaw sarax bi nangam ak nangam limal ko ay mbir yu bari dañ lay wax loo xam ne yow mënoo koo amal sa bopp foog nga yónnee leen xaalis bi ñëw waaw kon ñooñu la seytaane di jekk ak ñan ak ñiy takk téere takkatu téere yi man danaay faral di wax ne doomu aadama judduwaalewul ak seytaane léeg-léeg gis nit ku ami seytaane ci yaramam nit ku seytaane jaxasoog moom fekk moo ko teg boppam moo installé seytaane yi ci moom moo ko moo ko téléchargé ci ay téere yu muy takk ak ay lam yu ñuul yu muy takk yow da am sa doom mu judd doon liir bu tooy xëpp nga koy téléchargé ay jinne ak ay seytaane ci loo yëgul fu ne nga wuti fa ay xaw ak ay ndomboog ay yu kenn xamut ñoo di ko takkal xale buy doog a judd te wallaahi xale buy doog a judd moo la ëpp sécurité loolu la nit ñi xamul xale buy doog a judd mos ngeen naa dégg liir bu jaan mat ah ñu ne liir bi daa génn àdduna ñu ko rey ñu ne ko jaana ko mat gis nga jaan magum jëmm lay mat mais xale bu ndaw bu mënalu boppam dara day foo ak jaan ji di foo moom jaan ji di ko lëmasoog yooyu muy foo moom loolu gis nañ ko ba taay wala gis nañ ko ba tàyyi léegi-léeg nga boo demee ci village bi léegi-léeg nga jël sa doom tëree ko ci néeg bi ñëw fekk am saamaan di ko jéggi jéggi dem yoonam bu doon mag nga xam <laughs> bu doon mag moo xam ne mën na aar boppam nga xam gis nga xale moo ëpp sécurité ku mënti doon ñaata ci ay choc ak ay accident ak ay lap ay bato yoo xam ne liir bi day mucc léegi-léeg nga gis liir bu ñu sànni ci bërëb boo xamante ne nii su fa mag fanaanoon faatu yàllaaw kon xale mo upp sécurité mak te leg leg nga gis ko xamanteni ni domam day judd rek mu wuti ay xawak ay ngaawak ay bogal dek ay xarfa xufak ay béjjën ak lu nekk takal ko xale bi te yaa ngi téléchargé xale bi ay jinne te xamoo ci dara waaw yaa ngi koy téléchargé ay shaytané ki jinne te yego ko sax ndaysan waaw motax suñu borom mu ne ñooñu moy ñi nga xamanteni ni seytaane ñooñu lay jekku ñooñu lay manal dara waaye ñi nga xam ne dañuy sellal gëmuñu ku dul yàlla wóoluwuñu ku dul yàlla bàyyi ak seen bopp yàlla jëbal seen bopp jëbal njaboot gi yàlla ñooñu seytaane mënul si ñoom dara mu ngoog kon ñu taxaw foofu ñu noddu lu des ci waxtu wi bu amee ay intervention mu jël ko insha allahu taala